bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu doon ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi bismillah barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu yëpp di nuy bokki taalibe yëpp di leen woo rek ci bis bi nga xamante ni daara sax na amal Parcelles mi ngi koy amal le 7 janvier ci Parcelles Assainies unité treize juma unité treize bi am na moo jàkkaarloog euh, hôpital Mame Abdou bi ñu ngi woo mbokk taale bi yëpp ñu ñëw ngir waxtaane institut islamique bi nga xam ne ni ñu koy bëgg a taxawal jëm tuddee ko kër Sëriñ Tuubaa muy siège Darou Salam Oman ñu ngi ci woo murid yëpp di ci woo mbokk taale bi yëpp ñu xam ne mbir mi seen mbir la te ku ñuy jëfit sa bopp moo ko jël ñu xam ne Sëriñ Tuubaa la ñuy liggéeyal rek kon ñu ngi ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rek fépp murid nekk wala jullit ñu ngi lay woo ci bisu la set bi ngeen teew loolu sopp nañ ko ci lool ndaxte liggéey moom liggéey suñ Tuubaa am na li ñu am na woote waaye am na woote loolu loolu loolu képp la kon ñu ngi woo ñëpp rek la set bi incha allahu rabbi bu mu laal suuf nañ ko yëkkati loolu bu ñu yëkkati bu suuf ilaahu kalimatillahi al ulya loolu dong muy